الحمد لله الحمد لله وحده وسلامان على من لا نبي بعده بكي جرن جيف كون ني دكتور حديث بي اند شيخ امام شيخ علي سيسي مودي نينتل يون ني اند ген سامدي بي تولوك جوروم فان سي رمضان 1440 ني تيولو امام شيخ احمد تجان علي سيسي سي تيكي جي سي ولف سي عرب نيان شيخ شيخ آه، عبد الله الشيخ محمد الماهي ابراهيم نياس ابو بركه السحور من غير ايجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى بنتي yonent صلى الله عليه وسلم وخنه xadd barke la wala barke ngi ci mu ne ci lu duut nag ñu waral ko taxut nag mu wane ne dafa war dafa ne barke ngi ci ndax mu ne yonent bi sallallahu alayhi Wasallam ak saabaam yi jokkale nañ te jamono ba ñuy jokkale tudduñ xadd maanaam daawuñ xadd abdullahi solo ne yonent bi sallallahu alayhi Wasallam jokkale na nit ñi jokkale ànd ak moom maanaam or ba jant so duñ dog ñu continuer or guddi ga demaat ba ca ëllëg sa mu ne nit ñi toppandoor na yonantu bi ci loolu mu métteeg ñoom yonantu bi aay leen ko ñu ne ko yow yaa ngi koy def mu ne leen man bokkuma ak yéen man ñu may indal ci benn bërëb di ma fa leyal di ma fa dàndal kon man mën naa jokkale waaye yenn mënu leen ko صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة سرنا جليج أنس بن مالك رضي الله عنه وحنا ينتبه صلى الله عليه وسلم ما وحنا دلنا خد نخد بركينش الله عليه وسلم باب إذا نوى بالنهار صوما وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل بنتي nit دم dem بجك تدور اينا te doora ee na ne wax na ne jëkkëram Abu Darda ñëw na ci kër gi laaj ko ne ko ndax lu ñu lekk am na fi mu ne ko déedéet mu ne kon man dama or tey suma bis bii tey dama ko or loolu nag mu ne Abu Talhata def na ko Abu Hurayra def na ko Ibnu Abbas itam def na ko Xudayfatu radiallahu anhum ñooñu ñëpp ci saxaaba yi lañ bokk def nañ ko abu asim sax moom na nettali na na jëlee na ci yazid mu jëlee ci abu abd mu jëlee ci salamata ibnul akwa radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni woon na nit ak góor yónni woon na góor mu dem ci nit ñi eey na ne eey yéen nit ñi tey la bis itam xarit képp koo xam ne lekkoon nga da mottali li des ci bis bi or ko walla da nga ko or ku lekk gu toon itam bu lekk maanaam dem nañ ba digg bëccëg yonent bi door leen wax ne man ngeen a or li des ci bëccëg bi ñu jàpp foofoo mu leen yonent bi waxee ee na fa or la des ci bëccëg yi tam xarit boobu sallallahu alayhi wa sallam baabu saa'imi yusbihu junuban حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة الحديث حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومين على المدينة فقال أبو, فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك وذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند bunti nit ku oor ba pare xëy amee jana ba joo xam ne sangoogut ko mun a jëlee nañ ci Malik mawla abi bakrin ibn abdurahman mu jëlee ci xaaris ibnu hisham ibnu mughayra mu ne dégg na Aba Bakri ibnu Abdurahman mu wax ne nekkoon naa man ak suma baay waxtu wa ñuy dugg ci Aïchata ak Umu Salama dal nettali xadis ji mu ne solo nañ jële ci Abdurahman ibnu Xaaris mu jëlee ci ibnu Hisham mu ne baayam Abdurahman wax na Marwaan ne ko Aïchata ak Umu Salama nettali nañ ñoom ñaar ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam janaba daana ko dab fekk julleeguñ suba waaye daf daan xëy rek daldi di oor daf daan sangu rek xëy daal oor mu ne Marwaan ne wax Abdurahman ne ko gëj naa ci yàlla ne tey ma gëtën Abu Hurayra ci xadis yi ndax Abu Hurayra moom lam riwaaye mooy ne bis boobu daf ko war a fay waaye bis boobu daf ko war a dog ba pare fay ko ndax bis boobu mën mënta mat mënta mënu ko or te fekk ñoom dégg nañu Aïchata ak Umu Salama ñu nettali ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak bi ci néegam nekk ay soxnaam yonent bi jana ba daana ko jot waaye dafay xëy rek sangu dal di continuer or korom Abubakar ne nettali loolu mu ne abdourahman daal di sib loolu moom mu ne yàlla def ñu daje ci zul xulayfa mu ne fekk abu hurayra moo amoon foofu suuf soo xam ne dafa daan dem di fa noppalu mu ne abdourahman wax abu hurayrata ne ko danaa la nettali mbir moo xam ne su toxtoon ak li marwaan gëñ kon duma ko duma la ko wax nga daal di ko nettali li nga xam ne moom lañ jëlee ci ummu salama ak aïcha ne yonent bi daana amee janaba xëy rek dal di or te du ko yàqal dara te ñoom ñoo gën a xam ñoom jigéen ñi Fadl ibnu Abbas mu ne ñoom ñoo gën a xam ñoom jigéen ñooñu ndax ñoom ñoo nekkoon ak yonontu bi ci nekkam mu ne waaye Abu Hurayra moom la mu wax mooy ki nga xam ne dafa amee janaba ba fajar jot te sanguwut bis boobu daf ko war a dog waaye mu ne wax ju njëkk ji li umu salama wax ak aïchatu ne yonantu bi daan na ko amee ba pare sangu daldi or bis boobu mu ne loolu mooy li gën a wér mooy li gën a dëgër itam mooy li gën a am sanat mooy li gën a wér sallallahu alayhi wa sallam baabul mubaasharati lissaa'imi wa qaalat aïchatu radiallahu anha yaxrumu farjuha حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه من ne أور بابا ردي جون جوك جبرم عائشة نك ننا nag ne نكو lépp dagat na ko ba mu solo dañ jëlee ci Aïcha radiallahu anha mu ne yonentu bi sallallahu alayhi wa daana or ba pare di foonante di jonjoo ak jigéen ñi waaye nag wax na ne moom yonentu bi ne man maa leen gën a moom suma bakkan moo gën a moom bakkana maanaa yooyu yëpp mën na koo def te du ko yàqal rab keneen nag koo xam ne mënoo ko jarul ko ci جمله صلى الله عليه وسلم وقال جابر بن زيد إذا نظر فأمنى يتم صومه وقال ابن وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنا يتم صومه باب القبلة للصائم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت jaabir nee na su fekkee ne dafa xool jabaram ba mën yu génn ci moom mu ne kooku dafa ma mën naa matal kooram bis boobu waaye loolu nag xam naa ci uute nañoo xam ne koor googu dootu wér ak ñoom mukk lu may nga dog ba pare fay bis boobu solo nañ jëlee ci Aysatu mu jëlee ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xadis jooju solo nañ jëlee ci abdullah ibnu maslamata mu jëlee ci malik ibnu hisham mu jëlee ci malik jëlee ci hisham mu jëlee ci baayam jëlee ci aïcha radiallahu anha aïchatu ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam daan na foonanteeg lenn jabaram te fekk mu oor mu anha حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخميلة إذ حط فانسللت وأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم سنن جليتي ابو سلمة جليتي زينب بنت ام سلمة جليتي يايم من قمنا سخنا لون شيرون صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وخنا nekkoon naa man ak yonent bi ci benn dër dër maanaam fu ñu def ay ñax yu rafet nga xam ne dafay féex mu ne lii dal jigéen dal ma maanaam ma gis baaxi jigéen mu ne mu rocceeku rek ci càngaay li ma càng sangoon ak yonent bi daal di jël sumay yére yi mbërëg maanaam yére yi nga xam ne jigéen ju mbërëg moom lay war a jëfandikoo mu ne yonent bi ne lan la lan mu la dal ndax dangaa gis baaxi jigéen ma ne ko waaw mu ne ma dem jël yére yooyu sol ko ba pare ñëw duggaat ci dër bi nga xam ne ci lañ nekkoon maa ngi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye daan nañ sangu man ak moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn ndab mu dima ma fóon te fekk mu ngi oor moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam باب اغتسال الصائم وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ولم يرى أنس والحنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا بنتي نلكو أور ببرأي دي سنغو أكن دوخ موسى دنجير سدل يرمم ابن عمر رضي الله عنهما من دان تويل مبو sol ko ngir féexal yaramam ci tàngaayu koor te fekk mu ngi or mu ne shaab yu itam daan dugg ci xamaam yi yooyu ci réew yi arab yi la am di ci sangu te fekk mu ngi or ibnu abbas itam ne na mos walla dara ndax xoromam ëpp na wala ëppul wala sukaram ëpp na wala ëpput mu ne dara nekku ci xasan ne na gàllaxndiku itam pour seddal sa gémmiñ dara nekku ci seddlu itam ci ku oor maanaam dem fu sedd ngir seddal sa yaram mu ne dara ne ko ci ibnu Mas'ud ne na kenn ci yéen bu xëyee oor bu xëyee na diw boppam peñe ko na defaru daal bu baax loolu yàqul ci koor dara Anas radiallahu anhu wax na ne amoon na mbalka moo xam ne mu ne def ciy dugg daf koy feesal ak ndox dugg ca ngir seddal yaramam ci tàngaayu koor fekk mu ngi or mu ne solo nañ jëlee ci yonent bi itam sallallahu alayhi wa sallam ne daan na soccu fekk mu ngi or ibnu Umar nag ne na ki or buy soccu na soccu ci jël benn bëccëg bi ak ca mujj ga waaye bu mu won itam lor yi nga xam nañ ñooy génnee ci gémmiñam ata wax ne su fekkee ne mënta tee lor yi ba won ko mu ne waxut ne dog dog na waxut ne koor googu yàqu na waaye daal xaj na sikka nga fa daal ibnu na itam wax na ne soccu dara nekku ci même su fekkee ne soccu bu tooy la sax mun a dara nekku ci ñu ne ko ah socc bu tooy dafa am caf nga mu ne leen ndox mi am na caf nga te yaa ngi koy galaxandikoo te yàqut sa koor kon socc bu tooy mënta yàq koor anas ak xasan ak ibrahim ne nañ mën ngaa tusungalu sax yàqut ci koor dara moom loolu yëpp nangu nañ ko ne nañ dara nekku ci allahu anhum حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم باتاي حديث xadis ji wéyoon moom lay waxaat ni ba tey mu ne solo nañ jëlee ci sayyidatuna من يرن تبي صلى الله عليه وسلم فجر دان نكو جوت تشوير كور تفك مغي امي جانبا جو خامني سانغو غور كو تدو جانبا جو خامني سي غونت لا من واي دا دان سانغو رك دال لي اور بيس بو دا كو خال كور صلى الله عليه وسلم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يصبح جنبا من غير من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك بدأي tey jëlee ci abdurahman ibnu alxaaris ibnu hisham mu ne dégg na aboubacar ibnu abdurahman mu wax ne man ak suma baay dem nañ ba dugg ci aïchatu jabar yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi wax ne maa ngi seede ne déet aïchatu wax ne maa ngi seede ne ci yonentu bi ne daan na xëy amee janaba yoo xam ne ci sëy la ko amee te duwut waaye dafay sangu rek daal di or bis boobu mu ne dugg nañ itam ci ummu salama nettali leen lu mel nii li ay Aysa nettali maanaam yonent bi daan na amee ba fajar jot te sanguwut ko waaye dafay sangu rek daal di or bis boobu waaye du ko yàqal koram sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi jërë ngeen jëf kon loolu mooy xadis mu di ñeenteel yoon ñi daje geen juróomi fan ci weer ramadan Serigne Gueye moo nekkoon ci caméra bi micro bi Mouhamadou Bassirou Niang rendez allah suba ci dimanche bi jërë ngeen jëf.